sëriñ Aliou nee na ku lañ ci suuf noppi sëriñ Aliou Gueye nee na ku lañ ci suuf noppi waaw maa bare wax rek ngi ndaanaan rekk bés boo lañ ci suuf noppi Uh-huh.